te dama leen di ñaan ngeen dégloo maak xel te bañ maa dégloo ko xol ma leen di ñaanat aussi képp ki nga xam ne mun ngaa partager vidéo bi exceptionnellement nga partager ko ndaxte kàddu yi nga xam ne moom laa bëgg yëkk yëkkati tey amal na ma benn peeru solo bi nga xam ne bëgg naa fa mu mën a yegg rek la lu fu mu mën a dem rek na fa dem ndaxte am na ay mbir yi nga xam ne moom moo xew ci réewum Angleterre mooy maanaam ay ëmmët yi nga xam ne dafa jéggi dayoo Angleterre mu ngi tàkk jëppët lu ko waral mooy parti bi nga xam ne la ñuy wax parti d'extrême droite bi nga xam ne Nigel Farage bokk na ci njiit yi ñoom ñoo ne bëggatuñu gis lii nga xam ne mooy ay immigré seen réew léegi nag dafa am benn mbir bi nga xam ne moom moo am maanaam ñun africains yi ñun ñu ngi nekk di subir ay mbir yi nga xam ne ay mbir yu jéggi dayoo la ndaxte bu ñuy wax racisme africain mu ngi dund racisme ci lii nga xam ne mooy wàllum sport mooy ci lii nga xam ne discrimination la jëm ci liggéey bitim réew jëm ci lépp li nga xam ne def ñuy sukkali daf ñuy yëkkati ñun dañu ciy betti sport bi dañu ciy am football ak tennis ak lépp li nga xam ne ay nit yu ñu lañ fay dund di def sport tubaab yi bëgguñu ko si ñun bëgguñu suñu jëm ci wàll boobu noonu tubaab yi bëgguñu ñuy ñëw seeni réew daanaka Europe yëpp bëggatuñu benn doomu africain di fa ñëw moo tax ba lépp lu ñuy wax parti d'extrême droite nekk di gën a am doole Europe moo xam France Allemagne états uni réew yëpp ba ci Angleterre ñoom ñëpp ñu ngi wane lii nga xam ne mooy seen bañ bi nga xam ne bañ nañ ko nit ku ñuul waaye lii nga xam ne moo gën a yéeme ci mbir mi mooy maanaam ñun ñu ci ñuul yi ñu ngi gën a continuer ginnaaw bi nga xamee ne àdduna bi dañoo bañ bëgguñu der bu ñuul di xeex der bu ñuul di gën a fësal seen racisme mu nekk li nga xam ne dañ koy wane ouvertement nekkatul lu ñuy nëbb wala lu ñuy naxsaaye dañ koy mandargal di ko fësal ci anam yu ñu ko mën a fësalee ñun africains yi ñun ñuy continuer di bañante suñu bopp waaye mbir bi nga xam ne moom moo gën a yéemeeti encore mooy maanaam lii nga xam ne mooy diine yi nga xam ne ña nga sokkee koo ca bitim réew li ki mel ni réewum France bi nga xam ne ne dafa ne dafa am ay valeur chrétienne réew France ñoom ñooy représenter la scène avec ay maanaam ay góor jigéen ñuy wax ay drag réew Arabie Saoudite bi nga xam ne moom mooy la berceau de l'islam ñoom ñoo commencé di dalal ay défilé de mode ay xale jigéen ñu sol slip di organiser ay concert di organiser lépp li nga xam ne ay yëfu bakken la mooy maanaam ay truc mondain la ay yëfu àdduna la tey Arabie Saoudite moo ubbi àdduna bi ci ay concert de musique ay concert de rap ay ay ay spectacle de cinéma ay défilé de mode ñun pendant ce temps ñun ñuy xeex ci lépp li nga xam ne dañu ko imposer mooy maanaam ñii nga xam ne ñoo ñu imposer ñoo ñu indil seen i diine moo xam croisés yi nga xam ne ñoo ñoo dugg Afrique tubloo suñuy maam par force moo xam al almoravide yi wala arab yi nga xam ne ñoom ñoo jëm dem dugg Afrique coloniser par force parce que muy l'islam muy christianisme yëpp. dañ saa coloniser mooy maanaam dañu ñoo ñëw tupploo suñuy maam par force ñii ñu def leen ay chrétien ñii ñu def leen ay jullit ñooñu nga xam ne ñu ko def ñu ngi ñuy won seen mbañeel si ñun mooy maanaam malgré na ñun dem nañ ba doon ñii ay jullit ñii ay chrétien naar yi bëgguñu ñu nasaraan yi bëgguñu ñun ñu continuer di gën a bañante suñu biir di gën a xeer xiiroog ŋaayoo suñu biir tey mbir yi nga xam ne dañu ñu koo importer kon jot na Afrique ñun ñu yeewu ndaxte bu fekkee ne nasaraan sii nga xam ne ñoom ñooy jokkalante seen biir ñooy xeex seen biir mooy maanaam Russie bii nga xam ne moom mooy xeex ak États-Unis ak Occidentaux yi di continuer di jokkalante ak ñoom ci wàllum koom-koom ñun africains yi ñun ñuy gën a on est en train de s'autodétruire mooy maanaam ñu ngi gën a loor suñu bopp mooy maanaam ñu ngi gën a yàqal suñu bopp ñu ngi gën a bañante ñu ngi def lépp li nga xam ne mooy maanaam tubaab yi fee la ñuy toog dañu ree ñun bëggante ba pare ñii nga xam ne ñoom ñooy occidentaux yeeg léegi arabe yi ak asiatique yi aussi bëgguñu parce que chinois bi tegul fenn der bu ñuul arabe bi tegul fenn der bu ñuul nasaraan si tegul fenn benn bu ñuul ba pare ñun ñi nga xam ne ñooy nit ñuul itam soppantewuñu suñu biir kon Afrique réveillez-vous Afrique yeewu leen am nay mbir yi nga xam ne war nañ toogaat xool suñu bopp ne lan moo tax ñun ñuy rente suñu biir ci mbir yi nga xam ne ñun dañu ko importe te dañu ko importé ñoom jàll nañ ci leneen ñu ngi yëngatu ci leneen nasaraan si tey ñu ngi toroxal diine bi nga xam ne nee nañ fa la cosaanoo fa la fekk baax ñi jël ay seen di ko def représenté ak ay góor jigéen arabu saoudite bi nga xam ne mooy le berceau de l'islam moom mu ngi continuer di ubbi ku lépp li nga xam ne ay mondanité la mooy maanaam ay spectacle ay défilé de mode ay concert ay rap ay ay ay UFC ay mbir yi nga xam ne laalewul dara diine lépp li nga xam ne daal dafay jëm ci po lépp li nga xam ne dafay jëm ci loisir ci tourisme ci la ñuy yëngatu kon nag ñun africains yi war nañ xoolaat suñu bopp xool lan moo tax boobu ba léegi ñun ñu nekk marche pied wu ñëpp depuis euh, lii nga xam ne la ñuy wax civilisation égyptienne nga xam ne ñun ñoo woon àdduna bi ñun ñoo woon grec lan mooy mathématique lan mooy science tey ñun ñooñu romb nañu ba yegg cay niveau yi nga xam ne ñu ngi cay roplaan di laali weer yi gëna a sori ci àdduna bi ñun ñuy nekk fii di continuer nekk à l'état mooy maanaam lii nga xam ne suñuy maam ñoo ko sookee ak lii nga xam ne moom mooy première bind yi ñu koy wax les hiéroglyphes ak yeneen xeetu xam-xam yi nga xam ne ci der bu ñuul la sokkee ko ci li ñuy wax égyptologie tey ñun ñu toog ba nekk nit yu gën a dellu ginnaaw te ñun ñoo sooki ñun ñooy la berceau de l'humanité kon baax na ñu yeewaat ñun africains yi Afrique réveillez-vous ñu ngi prôné ay débats yi nga xam ne amul benn njeexital lu dul lu ñuy gën a boole ñuy xiiroo ko ngaay di reyandi suñu biir di ko def saa su nekk comme ni mu amee Afrique Afrique bokk ci zone yi nga xam ne moo ëpp guerre ci àdduna bi lii mooy sama jàngat Afrique réveillez-vous Afrique réveillez-vous sénégalais yi yeewu leen yeewu leen ngeen xam ne ñun. ñu ngi ñuy nax ci ay mbir yu bëree bëri bëri bëri bëri ñu ñu koy tegal ba pare ñun ñuy ñuy konde di ci xiiroo di ci ŋaayoo di ci xeex bu fekkee nag am ngeen dégg rek ak jàng-jàng di xam fan laay waxee seen xarit la woon Léon Baltasar le caméléon di leen ñaanal kenn du lu jàmm ak salaam